votre engagement li ko motiver euh, ce combat c'est pour que les Sénégalais puissent reprendre les choses en main. Mhm. Euh, boo waxee loolu tey jii nii euh, on a un peu du mal à comprendre prendre les choses en main ci réew moo xam ne on est indépendant depuis 1960 politique yi ñuy def sunu homme public yi homme politique yi ñoom ñoo koy déterminer qu'est-ce que vous appelez reprendre les choses en main. non parce que loolu su koy wax foog naa dañuy jum parce que tey soo xoolee on n'a pas de politique monétaire loolu dëkk yu bëri da nga utiliser comme levier financier pour des fois. mën a yokk sa exportation wala mën a wàññi inflation bi. Mhm. tey gis nañu inflation donc gis nañu tey États-Unis yokk seen taux directeur pour wàññi inflation bi ñun on peut pas utiliser ce levier financier parce que ñun on n'a pas de moomuñu suñu moomee monnaie donc on peut pas faire de vraiment de politique monétaire loolu nekk benn. Mhm. donc outil yeneen dëkk am ñun amuñu ko. deuxième plan bu ñu am tamit euh, problème bu ñu am euh, te tout le temps ma koy wax mooy euh, dëkk bi moomuñu ko parce que tey ñoo wax croissance. à six sept pour cent. Mhm. ñu ne sax année prochaine dina yokk peut-être mais loolu gisuñu ko ñun parce que su ne dëkk bi dafa am croissance te ñun sénégalais gisuñu croissance boobu donc doy na waar ba am ñuy wax sax ne croissance du croissant loolu pour wane ne. Mhm. croissance ñoo ngi koy gis mais ñun lekkuñu. lu tax ñun euh, lu tax constat boobu garaaw parce que croissance boobu am na c'est vrai. mais ñu ko porté sont les étrangers. wala mhm. les sociétés étrangères. c'est parce que tey secteur d'activité étrangers ñoo ko jiite wala ñoo ko ñoo ko yor tey soo demee tout ce qui est exploitation de ressources naturelles mooy maanaam ñu fu ñuy jëlee or bi wala pétrole wala gaz wala phosphate yëpp étranger ñoo koy ñoo koy mais comment inverser la tendance ak aussi le fait que euh, mu demee noonu est-ce que euh, sunu euh, coobare la maanaam est-ce que on est prêt pour prendre en charge tout ça téye ko réellement. parce que non on est prêt parce que tey <coughs> ñu am suñu or. Mm-hmm. keneen exploité ko muy dem muy gem bitim yow naa les moyens pour ça exploité ko sur place raffiné ko sur place euh, mu jariñ waa waa waa Sénégal xam nga raffiner or je pense que nit yaa ngi koy def depuis ay mille trois cent mille cinq cent y a rien de plus compliqué te avec la modernisation c'est encore plus simple mhm. loo soxla camion concasseur four jeex na c'est très simple c'est un procédé très simple soo ne pétrole ma ni d'accord pétrole c'est un peu plus compliqué mm-hmm. mais l'or moom c'est très simple et su ma jumulee y a des pays qui le font comme ay Rwanda wala d'autres pays le font pourquoi pas nous gën ñoo jàng donc or on peut l'exploiter nous-mêmes mm-hmm. jël xaalis bi mu dugg suñu suñu dëkk mais malheureusement on le fait pas euh, les autres secteurs d'activité tey soo demee euh, ñu koy ñu si ëpp ñu si ëpp doole étranger la su demee assurance mhm. même chose distribution hydrocarbures même les téléphones Free euh, ak euh, Orange c'est des sociétés françaises mhm. donc tey foo muntul xool banking bi tout ça voilà foo mhm. muntul xool c'est les étrangers dafa baax nag des fois ñun ñu fexe créer benn discrimination positive jàppale Sénégalais ñu mën a concurrence au moins avec ces gens là ba fexe ba del jëlaat réew mi nekkaat euh, numéro jox ko Sénégalais